oui ñu dem RFM donc Babacar Fall Benoît Sène coordonnateur national de ABCDR membre coalition Diomaye Président on se retrouve juste après. tous les auditeurs la RFM euh, di rafetlu invitation bi comme ni nga ko waxee tey 28 août 2024 mu nekk troisième anniversaire de décès de maître Alioune Badara Cissé nga xamante ne ñun moo ñu tàggat ci politique. ci keppaaram la ñu yaroo depuis yàgg na bi ñu nekk université donc Maître Alioune Badara Cissé nekkoon kenn koo xamante ne Sénégal dañ koy jooy te noppeeguñu ñu koy jaale ay mbokkam di ko jaale famille wam sa famille biologique di ko jaale également sa famille politique dont je fait partie et je coordonne donc le mouvement des abécédaires bi nga xam ne euh, jëmmal nañ ko depuis 2013 ñëpp xam nañ ne Alioune Badara Cissé période boobu amoon na ay jafe-jafe yu mu amoon ci biir APR kër googu nga xam ne moom moo ko tabax ndax daan yàgg wax ne il est le jeune tër de l'APR donc ñëpp gis ne APR demoon na ba nga xam ne ñu ngi doon dévier ci trajectoire am te Alioune Badara Cissé nekk nitu dëgg nit koo xamante ne il n'avait pas peur de ses idées il lave sa liberté de temps vraiment Sénégal rek ñor ko lépp lu doon def doon alerter. n'est-ce pas di artu mais loolu neexul woon ñu fi nekkoon muy Macky Sall mi nga xamante ne moom la àndaloon euh, samp ko mu nekk président de la République donc je pense que du ñu revenir ci histoire yooyu yëpp mais en tout cas moom li mu fi bàyyi tey muy son lekk politique te nga xam ne ñun ñu fas yéene ko jëmmal fas yéene ko euh, suuxat mettre ko à la disposition du Sénégal parce que Alioune Badara Cissé Euh, ci legs politique su ma koy wax c'est un legs immatériel c'est des valeurs. legs boobu. lan la leen dénkoon. Euh, lim ñu dénkoon dëcce bëri na mooy njaboot gu mu tàggat ci wàllu politique dans tous les quarante cinq départements et dans la diaspora également surtout jaspora bi Alioune Badara Cissé ay valeur la ay idee la n'est-ce pas ay projet la. loo xam ne lan la leen dénkoon est vous avez dit continuer leen ak APR ak nu mu mën ci deme bu fekkee ne fekkee ma ko. wala euh, euh, ber leen seen daara. mooy non non mosuñoo wax ne continuer leen ak APR même bu fekkee ne fekkee ma ko euh, même bu fekkee ne moom ba ba muy génn àddina génnul woon APR mais ñëpp gis nañ comment sa vie politique a été mise entre parenthèses n'est-ce pas au sein même de l'APR parti où il a été ostracisé donc. loolu kay sëñ bi kenn rek la woon muy muy Macky. ah mais mi ngi noonu. te Alioune Badara Cissé jëloon son courage. à à deux mains à bras donc wax ne Macky Sall jeexal na mënatu fee def beneen mandat euh, ci ba mu defee 2019 euh, ba ñu falaat ko donc Alioune Badara Cissé ñëpp xam nañ ne il avait une posture doom d'État doon na tabax loo xamante ne amoon projet amoon yéene pour réew mi mais bon donc ñëpp xam nañ ne bu ñu demoon ba 2024 bu ko fi yàlla suñu borom bàyyi woon mais day samp ndëndëm day samp ndëndëm parce que loolu ñu ngi ci doon liggéey n'est-ce maintenant nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam bi affaire yi demee noonu euh, lim ñu bàyyee ak ci liñ doon liggéey ñu gis ne bon vraiment euh, dafa dëppoo ak le projet jomaay euh, président ñu waxtaan suñu biir xam ne bon vraiment ci gàtt gàtt bi ñun. au sein des abcdr extraordinaire quand même <laughs> quel ñun au sein des abcdr amuñu. dans cet espace là euh, très avec les incertitudes qui ont entouré cette élection-là n'est-ce pas pour ñu faire émerger un candidat moo tax bi ñu waxtaanee. dem ca Diomaye président moom sëñ bi euh, bu leen ci dugal euh, ndem si yàlla nag yéen tam dem leen seen dem rek ci biir jomay noonoom ah non mais Babacar euh, y eu beaucoup de point de convergence dama la koy wax entre Alioune Badara Cissé ak ñii nga xamante ne tey ñoo nekk ci bopp réew mi. en deux mille vingt et un en deux mille vingt et un le sept euh, ci le sept le sept mars deux bi réew mi yëngoo mu nekk médiateur de la république mais moo yëkkati kàddu daal dalal askan bi wax ak ñoom et tout bon vraiment on se rappelle de ce discours là bi nga xamante ne il la tenu wax ak ñoom et puis euh, may rappeler deux mille dix neuf déjà bi doomam ji génnee àdduna fële ca États-Unis mais ñi yor réew mi tey defoon nañu délégation dafa le premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l'énergie des mines et cetera euh, Birame Souleye jóg bi nga xamante ne moom également bokk na ci ñi ABC tàggat ci politique parce que depuis bi muy nekk à l'UGB n'est-ce pas ABC di leen encadrer et tout donc dafa am ay lien yu yàgg ma fekkee jataay yooyu ñoom bi ñuy ñëw di jaale si wax dañ fa jokkalante et tout ça respect considération ak estime bi ñu am envers lom n'est-ce pas euh, mon ex-mentor politique ma xam ne bon donc lii euh, euh, bon donc fii mooy yoon bi te biñ ci waxtaanee amuñu ci benn jafe-jafe bien que unanimité moom kenn mënu ko am en politique mais de façon consensuelle n'est-ce pas on a fait un choix de la raison ñu ànd ak le projet Diomaye président battre campagne partout dans le Sénégal. ci ci wan mbubu ci wan mbubu ngeen demee ci Diomaye président. mais ci mbubu abécédaire yi. le mouvement des abécédaires le mouvement national et international. bi xam ne maay coordonné. mais am na abécédaire yu nekkoon APR. mais oui abécédaire yi nekkoon APR moom laa lay wax moo tax unanimité euh, amul am na ñoo xamante ne. Euh, bon vraiment amoon nañu légitimité euh, wuyootu tur woowu ci biir Diomaye président. te Alioune Badara Cissé ci boppam. biir APR am na ñu fa des ak Macky ànd ak sax ak Amadou Ba mi nekkoon beneen candidat bi yéen ngeen ni yéen ay abécédaire ngeen da ngeen dem ci Diomaye. waaw non mais c'est parce que amul problème légitimité. mais non amul benn problème amul amul benn problème légitimité amul benn problème légitimité euh, de façon consensuelle ñun ba ñu euh, defee suñu assemblée générale au sortir des élections législatives de deux mille vingt deux à Thiès mais vraiment foofu on a fait une déclaration avec. tous no responsables des 45 départements et ceux qui venaient de la diaspora ñu marqué notre pause notre rupture d'avec l'APR loolu ça date de 2022 mais après euh, demuñu woon fenn oh, parce que ñi ngi toogoon di def suñu póotum biir di waxtaan suñu biir et tout ça et donc Alioune Badara Cissé euh, nit ku toll noonu bon vraiment tey ñu koy màggal ñu koy fàttaliku parce que bon vraiment ni mu génnee àddina ba léegi amul benn honneur boo xamante ne la république l'état du Sénégal le lui rendu bon donc loolu également euh, dafa nekk lu doy waar Alioune Badara Cissé tëdd ci hôpital euh, feebar pendant un mois bon vraiment. Euh, dafa mu ki xew. ah non mais en tout cas bon xaw ma ndax am na lu ci xew mais en tout cas li ci ni mu génne àdduna ci tey na xel ak ni ñu ko ak ni ay obsèques am. tey xel ci naka tey xel ci naka. ah mais tey xel ci naka euh, ni ñu waxee ne euh, Covid la am mais ñëpp xam nañ ne Covid mais gars yi kenn du leen yóbbu hôpital principal. Ah, mais am na ñu fa nekkoon. waaw hmm. non ci mais xam nga prise en charge bi et puis aussi mu def ay vaccin euh, ñu gis ne loolu amatu ko et puis ak ni ñu ko isolé nga xamante ne personne ne pouvait plus avoir accès à lui-même kii euh, euh, à lui. et donc bon doy na. waa sëñ sëñ on va y aller directement est-ce que da njort ni dañ koo sàkkal pexe. waaw non am na ñu koy wax. am na yow loo wax yow yow yow loo wax. waaw non ci mais man ci li ma wax ci mooy que bon ci tey na xel et puis aussi euh, mun nañ ko saytu euh, mun nañ ci réfléchir parce que yow. Babacar lu graaw ngay wax nii. am na yow euh, sa benn mbokk journaliste boo xamante ne bon vraiment man bind na envoyé ma ay message yoo xamante ne. Euh, aw ma ci ay preuves matérielles je ne peux pas véhiculer certaines informations mais de tout façon loolu man nee naa ko bu fekkee ne am nga yow loo xam des éléments matériels prouvant que li ngay wax nii euh, noonu la demee mais nga jëbal ko procureur mais daal gis nañ ne daal bon vraiment bi mu génnee àdduna honneur yi ñu ko waroon rendre euh, defuñu ko amul levée du corps amul. Euh, ci xam nga koo xamante ne c'est dans l'exercice de ses fonctions. bon xam nga tamit Covid bi. Euh, yooyu da doon yooyu gàllankoor la woon encore médiateur de la République. waaw non mais Babacar am na loo xamante ne au moins à titre posthume nga décorer nit ki. Ah, non dëgg gi moom loolu wax nañ ko fii ci RFM ci jamono jooju APR ak yi dañoo dañoo sewaloon Aliou Badara Cissé bi mu génnee àdduna. mais même ba mu tëddee. Euh, waaw principal à deux pas de kii du palais mais ñun amuñu information sax que waa nguur gi à l'époque mooy dem nañ seeti ko. mais est-ce que ça pouvait pas se comprendre. parce que Covid ah, bi hmm. bon xam nga Covid à bon dos mais Covid à bon dos de Covid mais euh, euh, euh, kii ñi fi nekkoon ci di Covidé kii xam nga nekk ay Covidé. Euh, ñu internet dans les hôpitaux mais ñun dañu léegi ginnaaw seen xel sol seen seen xel dafa tey seen équipement de protection personnelle mais dugg vous faites des allusions euh, vous faites des allusions graves ah est-ce que non, oh, non, non non non grave c'est mm. euh, euh, léegi yéen ginnaaw seen xel tey na ci ci anam yi mu génne àdduna est-ce que da ngeen di am ay jéego yu ngeen cay teg jëm ci leeral koom déet ci mais loolu moom de toute façon ci mooy comme li ma la wax xam nga ci ka nga xamante ne moo njëkk a yëkkati euh, mbir yooyu soupçon yooyu wax ju ko et tout ça bon euh, euh, par des moyens un peu non officiels euh, mais bon lui reste la responsabilité mais peut-être que que xoolal euh, ñun ñi mu soxal mais ñun en premier lieu euh, dinañ ci xool par quel voie et moyens bon xam nga loolu mais quand même on le laisse en paix mais en tout cas il est temps qu'il soit réhabilité xam nga en 2022 Babacar euh, kii am na benn pierre bu ñu tegoon à Saint-Louis notamment hôpital de niveau 4 bi mooy ne moom la ñu koy tuddee donc instant boobu état bi jéemoon na def kii mais loolu on trouve que c'était du saupoudrage parce que ba léegi xeer bañ fa tegoon xeer ba daanu na euh, n'est-ce pas euh, te c'était depuis juillet 2022 à Macky nekkatu fi ñii nga faral tey kay ñoo jël réew mi xanaa nañ yeggale yëf yi. Euh, waaw non euh, moo tax man je leur lance un appel solennel bon vraiment euh, que loolu mbëbët la woon bu rafet boo xamante ne vraiment Alioune Badara Cissé mérite mérité na ñu jëmmal ci kii ñu jëmmal mémoire am ci biir Sénégal te hôpital boobu bon vraiment war nañ ko war a mën a continuer les travaux ñu taxawal ko n'est-ce pas parce que boobu ba léegi. Euh, les travaux devaient durer dix-huit mois depuis juillet deux mille vingt-deux mais ba léegi dara Foras ñu waroon ci liggéey ci soixante douze milliards euh, amul dara on a même ci euh, ci ci certains de nos qui sont des élus locaux conseils départementaux conseils euh, n'est-ce pas yoo xamante ne qui ont déposé une plainte auprès du procureur de la République pour demander au moins que xam nga loolu nga xamante ne mooy waxoon nañ ne dañ koy kii mais fan la toll mais fan la toll état bi fi nekk nag puisque l' état c' est une continuité vous l' avez mais vraiment que euh, vraiment que Alioune Badara Cissé ñu ñu ñu ñu réyabilité ko ñu vraiment jëmmal sa mémoire si Sénégal parce que mérité na ko surtout ci Ndar au passage mooy nuyu sama mbokk Saint-Louisien parce que fa laa mm-hmm. jógee en j'habite Saint-Louis bon voilà ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. mooy te liñ fi bàyyi également li fi bàyyi également bàyyi la Georges laaj la. Georges léegi kan moo amoon intérêt sakkal ko pexe ak lan ak li ko waral. waaw non mais xam nga Georges yooyu bon c'est des questions yoo xamante ne. aw ma ci comme je vous ai ah, dit sëñ bi yaa ko fi euh, laaj la ci. Euh, kii xam nga aw ma ci des éléments de preuve ou bien matériel mais avec le temps bu fekkee noonu la demee ça va s'éclaircir mais fii Sénégal bon vraiment on a une justice ci quand même qui est qui est très compétente on a des magistrats qui sont très compétents on a euh, vraiment euh, en tout cas des autorités yoo xamante ne parce que yow nit ku day noonu bon vraiment mu génnoon àdduna amul sax autopsie amul dara et tout bon vraiment euh, Babacar nga may ma yaa ngi doon wax léegi ci li mu fi bàyyi ci wàllu politique ces ces idées ces valeurs l'héritage immatériel mais mun nañ ci toftal également un sociale et humanitaire parce que Alioune Badara Cissé euh, doon na indiwoon na fi ay partenaires belges yoo xamante ne qui ont au Sénégal une association internationale pour euh, défendre les enfants vulnérables plus précisément les enfants talibés ñu tudd Action Sénégal moom mu nekkoon le parrain vraiment fële ca Ndar ñu tabax fa benn centre bu mag boo xamante ne xale yi dañu fay ñëw recensé treize mille enfants taalibe dans la rue yoo xamante ne bon vraiment jóge ci yeneen dëkk jóge ci dans l'intérieur du pays fu nekk euh, di taxawaalu ci mbedd mi te amuñu benn avenir sur le plan de la formation sur le plan de l'éducation et cetera vraiment bi ñu créé association pour jël leen en charge euh, ñu fay ñëw di bénéficier wu de soins gratuitement de tous les services sociaux yoo xamante ne xale mën nañ ko am ñu tàggat leen et tout même di leen alphabétiser dugal leen école ba ren présenté nañ ci ay xale yoo xamante ne am nañ seen entrée en sixième bon loolu lu ñu mën a teg loxo la mooy te Alioune Badara Cissé ci ba mu génnee àddina mais partenaire yooyu jaaxle woon nañ dal di bëgg a sax génn réew mi daal di bëgg dem tëj kii bi mais on leur a dit mais ABC n'est plus là mais quand il faut que lii nga xamante ne bàyyi naka fii la meilleure manière de rendre hommage à un homme qui est parti c'est de maintenir et également de perpétuer ses œuvres moo tax ñun ñu ciy liggéey ak ñoom yàlla dogal man tey ma nekk le représentant au niveau du Sénégal di coordonner cette association là au niveau du Sénégal bon vraiment euh, xam nga te loolu dafa am tamit lu ñu ko mën a lëkkalee ak li nguur gi actuellement di def euh, notamment dans le domaine Euh, di ministère de l' éducation nationale ñëpp xam nañ ne. yéen moom ba yéen moom bàyyi ngeen famille politique gu ABC donte sax juñu nga ko sax ci ndorteel gi. famille politique ABC. Ah, waaw mooy ban. a ah, famille politique ba mu bokkoon. non mais euh, famille politique yéen moom. famille politique ABC bàyyi ngeen ko yéen yéen a ngi actuellement ci biir nguur gi. mais bien sûr mais bien sûr bon parce que ABC ABC ci moom ci boppam euh, lam doon xalaat ci xam nga taxawaay ba mu amoon. mais taxawaay boobu noonu ak li taxawaay nguur bi am mais moo dëppoo. ABC xam mais dafa dëppoo nag aussi ñama doon àndal ba ba muy génn àdduna. mais dëppoowu la woon ak ñoom de bon parce que xam nga Georges ñëpp xam nañ ne. génnul woon officiellement. Euh, ci depuis 2012 ci mais quand même sa vie politique a été mise entre parenthèses je l'ai dit tout à l'heure même à la médiature de la République ba mu nekkoon ñëpp xam nañ ne bon vraiment foofu euh, mënatul woon euh, bouger. dans quelque sens que ce soit. léegi fii nga nekk nii di ci Jomay. Hmm. Euh, moom léegi mu matal euh, xëy na juróomi weer euh, xaw ma sax fu fi tollati réew mi mi ngi doxam doxul. mais réew maa ngi dox. Ah. réew maa ngi dox bien sûr. parce que moom bi mu ñëwee. bi mu ñëwee acte yu fort yi mu njëkk a posé mooy wàññi na dund gi. dund gaa ngi cher ba léegi sëñ bi. donte bon li ci ñin ñi wax mooy nee nañ ci liñ ci wàññi mooy bëriw et cetera mais au moins def na effort wàññi dund gi. au moins euh, subventionné na euh, les semences subventionné na engrais bi et tout ça mooy fay na la dekk que l'État euh, que le régime précédent devait aux producteurs mooy pour que gars yi mën a lancer une bonne campagne arachidière. au même moment euh, les agriculteurs qui... disent que les semences ne pas de bonne qualité. mais si les semences sont de bonne qualité bon non. ça dire loolu ci xam yow tamit da ngay bay ah. Oh, xool mooy yow te damay bay de mooy man njaareem laa dëkk. Ah, ah, man njaareem laa dëkk. Euh, bawal bawal laa samay wajur fa lañ bàyyi ko xam nga te nii nii nii euh, maa ngi jëm ca tool ya maa ngi jëm ca tool ya en parfaite euh, cohérence avec les vacances agricoles sénégalaises. non yoo xamante ne <laughs> yoo xamante ne xam nga dañ ciy lancer un appel à tout à toute la jeunesse. à tous les jeunes bon vraiment que ñu def loo bon parce que xoolal ci réew secteur primaire bi. muy agriculture muy élevage muy pêche euh, moom moo ko mën a doxal te ndaw ñi dañ cee war a mën a taxaw Benoît Sène euh, euh, coordinateur national des ABCDR bokk ci Diomaye président Alioune Badara Cissé tey la am ñetti at bi mu génnee àdduna ak léegi ndax 2021 la woon 28 août ni tey jërëjëf Georges na ba mais Babacar il faut mu waxaat Dieynaba bi de remercie Dieynaba ni mu ko waxee dafa. dafa lekk Dieynaba bi. Mhm. kon bàyyi ma waxal ko ko jërëjëf Dieynaba.